moo waral tey indi wuñ tem boobu ngir waxtaane ko ñu nañ ko jàppal idda moom it ba jëmi jamono indi tem bi nga xam ne nii actualité la tey foo tourné rek série yi ci télé yi ci internet bi mais loolu noonu la waxoon nañ ci jamono yooyu noonu la mais nag léegi dafa gën a tasaaroowaat dafa gën a yaatuwaat te indi loolu noonu yépp li ci jiitu mooy utum dërëm ndax série yi dafa nekk loo xam ne léegi sponsor yi ci la ñuy dugal seen xaalis télé yi ci lañuy gisee seen bopp site internet yi seen YouTube yi ci la ñuy gisee seen bopp ndax sénégalais yi ñoom ñoo bindoo bëgg théâtre bëgg lu reelu bëgg yëfu comédie gannaaw dañoo gis ne sénégalais yi dañ ko bëgg nag euh, ci lañu ñu profité ku jug rek léegi ne série série série série série su fekkoon dafa bari comme niñ ko waxee léegi ci ginnaaw bari waay gi mu yem ci def série donte yëf yu reelu la mais mu làmboo jàngale làmboo lu dul agressé sunu culture ak sunu diine problème amu ci mais léegi dañuy def série yoo xam ne dafay agressé sunu culture ak sunu diine muy lu doy doy waar euh, oto bu rafet téléphone bu seer mooy luxe tey ki toog di seetaan te nekk ci këru baraagam wala néeguy sengam sengam lan lañ def ci boppam mooy lii da ko war a am jigéen joo xam ne ni mi ngi yor oto di dawal yor appartement am di recevoir ay góor góor ñi ñooy fay appartement bi oto bi benn faram moo ko ko jox kado téléphone bu luxe bi mu yor benn faram moo koko ko jëndal léegi lan lañ def ci bopp xale yu jigéen yi mooy kat ku ci bëgg oto bu cher ku bëgg kër gu rafet ku bëgg nekk ci appartement buñ lay fayal dangay génn sa kër yaay ak sa kër baay dem uti far léegi gis nga loolu noon le togg nañ ko ci série yi lu yàgg ba léegi ñu ngi koy réussir ba jigéen ñu ci bari léegi gisatuñu war a dëkk ci banlieue bi dëkkandook seen yaay dëkkandoog seeni mag ak seeni rakk bu ñuy sombi seen sombi ñu sombi ko bu ñuy mbaxal seen mbaxal ñu mbaxal ko mais lan la gis mais dañuy dem ci yenn quartier yu luxueux ut fa appartement boo xam ne nii salaire bu ñuy liggéey pour di ko fay mayu leen ko mais am na ay góor ay góor mbaraan yu leen koy fayal loolu noonu nag fan la jaare ci yenn série ci baree bari ay série jaar na fi yoo xam ne jigéen ña ca nekkoon amuñu benn liggéey budul seen appartement lañ yor di mbaraan heure bu nekk ñu présenté leen góor ñu ñëw ñu wan ko ne yow lañu bëgg dajaleelu lu mat fukki far far bu nekk ak la ngay jëlee ci moom moo lay jox yére ya ngay sol moo lay fayal sa appartement boobu nga xam ne nii moom ngay euh, nekk kon série boo ko jàngatee yooyoo ci nekk luxe ak mbirum sex ak euh, vulgaire vulgaire ku la gën a mën a wax wax ju bon gën la mën a wax wax ju ñaaw tey mi ngi ci série da ngay seetaan série nit saaga saaga te du ko def mu nekk dara léegi nit ñi naan a ah, moom de mooy comédien bi nga xam ne moo ma gën a neex ci comédien yi ki gën a vulgaire luxe sexe vulgaire loolu moo nekk ci ci série yi série yëpp boo ko tënkee li ñuy jàngale lu jëm ci mbirum farantu farantu am jëkkër am far am sa soxna amigel ñu baal ñu ci waxin bi mais loolooy nekk ci série yi mbirum sexe sexualité bi nekk ci seri yi amatuñu ci kers da nga gis koo xam ne nii rôle biñ ko jox ci seri bi moo ko may mu mën a fóonanteeg ku alxayri doxul seen diggante bu njëkk loolu fan nga ko daan gis ci série tubaab yi nga daan gis ay tubaab yoo xam ne nii der bu weex la ñu yor làkk na sunu làkk di def seri ba ci biir ñuy fóonante tey léegi sénégalais senegale ñooy nekk ci série jullit wala sax catholique la sunu xeet yi fi nekk wolof joolaa saraxule manjaago pël say maam say maamaat di sénégalais mais benn rôle buñ lay fayee benn cent mille francs wala soixante quinze mille francs mu jaral la nga jaay sa diine jaay sa ngor ñàkk kersa di fóonanti am na série yu dox yu daw yoo xam ne da gis jigéen joor cigarette di tux da ngay gis jigéen ji yor cigarette di tux di jouer rôle bandi bandi ne bandi la ci série bi bandi góor goo xam ne bu njëkk ko daan tux sax nekkoon góor xanaa danga daan da ko daan nëbbu mais léegi defoon nañ ko mu nekk dara ci série la ñu nekk di tux série la ñu nekk di tux mais fan nga ko daan gisee góor euh, guy tux ñoo ko daan def ci série yu njëkk yi mais léegi jigéen ngay gis mu yor cigarette taal am na bu njëkk sax ñoo ko daan jéem a essayé dañ daan camoufler noonu rek da ngay wane benn image mel ne mi ngi bëgg a tux après ñu dagg ko mu mel ne tux na day yor cigarette bi mais du tux mais léegi da nga gis ko am day taal ñu koy wane mu teg ci cigarette bi ñu koy wane mu seex ñu koy wane mu mukki ñu koy wane mu sànni ñu koy wane. too xam ne boo ko laajee yaay jullit baay jullit maam jullit maam mataar jullit mais ñàkk kersa ak benn rôle boo xam ne nii wër nañ ko ñàkk kersa ndax yenn rôle yi pour nga mën ko jouer da ngay ñàkk kersa ñeme bët ñeme bët